journaliste bu ci nekk benn laaj nga am donc moom dina jël ñetti question euh, ki ci njëkk euh, di euh, monsieur Abdoulaye Diop nekk le quotidien 24 heures donc Abdoulaye am nga benn laaj Issa moo ci topp bu Walfadjri jërëjëf sëñ Ousseynou monsieur le président ñu ngi lay sant di la gërëm di la nuyu ci jotaay bi di addu rek ci mbirum opposant bi ñuy wax Bougane gay Dany xamees na ni teg nañ ko loxo fële ca Tamba ci joote goo xam ne amoon na ko ak gendarme yi laata mars 2024 yow ak sa njaboot ci wàllu politik daan ngeen naxarlu yi mel ba jàpp ni sax jëf yooye dëppoowul woon ak réew moo xam ne tegu na ci démocratie wala ci république bu normal laaj bi mooy ndax mbirum Bougane ngay Dany jàpp nga ni deltu ginnaaw la ci wàllu démocratie ci sa ndorteelu magistère ci bopp réew mi jërëjëf jërëjëf ci sama prestation de serment bi ma doon waat engagement bi ma jël ci sama discours mooy bu soobee yàlla su may joxe lenge yi ci réew mi ñu gëm-gëmal ko ci bi may dem ak ci ba may egsi Sénégalais bu ne dina mën a teg loxoom ci lu leer ne avancement am na ci démocratie Sénégal li xew Bakel mën naa leen wax gannaaw njëkk leen ko yëg ndax dañ may rendre compte automatiquement maa ngi yéen ci yem dafa am loo xamante ne nekkul ci sama loxo mooy sama kaaraange dafa am ñoo xamante ne seen responsabilité la am na loo xamante ne seen cër googu mënuma leen ko deflu ndax kon bu ci défaillance amee peuple sénégalais bi dina leen ci ngañ fii dakaar chaque jour ma génn fi bu demoon ba saa yu may génn ku ñu ne taxawal ba président jàll nga ne président day doxi soxlaam damay doxi sama soxla kon man mii askan wi yónni di ma xaar te yàkkamti ma dinaa tardé te sama responsabilité moo ëpp ci réew mi kon taxawal xaar président génn ci foo xamante ne am na déjà jafe-jafe déplacement ndax inondation la nga bëgg dem seeti jay sinistré yoo xamante ne maa ngi doon dem ci boor boobu kuñ ko wax wala digg yàlla war nga mën a xaarandi tuuti te maye loolu ba ñu dem lenn rek a metti mooy dem naa gis naa condition yi nga xamante ne ci la ñi nekk ci région gu ak Tambacounda di liggéey muy force de l'ordre muy armée bi muy askan wi jafe-jafe yu mu nekk waaye muy tamit administration territoriale bu mu tax acteur politique yi may doon woo nañu fàttaliku ne que dañu am responsabilité boo xamante ne exemplarité la war a nekk ci respecte charte yoo xamante ne bu buñ ci tonkulee jéye mën na am musiba mën na am ku ne xam na fu président dem dëkk ji dina am ay mbedd yu ñu baare waaw bu ñu baaree ay mbedd am ndox moo xamante ne kenn mënatul doxee nu mu nu mu la neexee président nekk fa ay convoi yu gudd na ma ko yàlla baal ndax autorité régionale yëpp dañuy dañuy génn muy préfet muy sous préfet topp sama gannaaw ak ñeneen ñi ngay ñëw bëgg a dugg ak convoi bu gudd bu ñu la nee xaaral ba président génn li nga war a nangu la maintenant yoon a ngi def liggéeyam man ku ma andil kaamil ci saa su naa la mën a waatal ne que man du ma gàllankoor yoon ndax loolu laa waat ci kanamu Sénégal yi saa yu ma interpellé jox ma information que dara xew na ci wàllu yoon benn attitude laay am def leen seen liggéey donc ci loolu laa ci mën a yem en attendant présomption d'innocence la am. yoon dina def liggéeyam yaakaar naa ne bu dee moom luñ koy jiiñ amul yoon dina ko bàyyi nu mu ko bàyyee woon bu mu ko woowee te bàyyi ko bu defee nag yoon mooy wax ne def na mooy xool tamit lan lay teg ci kawam waaye man ci sama bopp li ma koy ñaanal mooy ay jafe-jafem gaaw a jeex ba mu delluwaat ci njabootam. merci beaucoup monsieur le président kon ñu jox euh, kàddu gi ki nga xam ne moo di Issa di wax ci tuuru Walfadjri ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di la nuyu bu baax président de la république du Sénégal monsieur Bassirou jomaay Diakhar fay sama laaj dama koy jomale ci li nga xam ne sànq yaa ngi koy wax muy ay kàddu yu ñagas yoo xam ne dañ koy faral di dégg ba ci sax xëy na loo xam ne mën na indi ay jéye ci réew mi ngay évoqué réseaux sociaux ñu am loo xam ne gis nañ ko ces dernières quarante huit heures muy koo xam ne da nga ko nommé bi nga ko nommé ñu toog tuuti gis ci réseaux sociaux yi ay nit di ñaawlu nomination bi nga xam ne moom nga ko nommé mu di PCA bu euh, SNHLM nit ñooñu après ñenn ñi di ko minimiser mais dafa dem ba law ba ci ñi nga xam ne xëy na ràññee nañ leen lool ci biir parti bii di PASTEF te nga bokk ci démissionné woon ci sa secretariat général bi nga xam ne yaa ko jiite woon sànq yaa ngi koy souligner est-ce que Euh, Samba Ndiaye bi nga xam ne moom lañ nommé da ngeen ko fas yéene teggi ndax dégg nañ sànq premier ministre Ousmane Sonko mu bind ab bataaxal am lu mu wax ne des mesures correctives seront apportées mu ne loolu lan lay tekki ci mesure corrective yooyu le bu ngeen ko teggee ci post bi mu nekk est-ce que du wane que nii président de la république dañ koy def pression pour que su su fekkante dafa jël ay dogal jërëjëf. commentaire moom naa la ko bàyyi. <laughs> puisque moom annoncé na ay mesures corrective xam naa ne boo bëggee xam mesures correctives yi muy nekk moom lañu koy interpeller ndax propos la waaye li ma bëgg a wax mooy dama nangul ñuy wax que ñu bokk ak man làng wala ñu bokk ci sax kuje gi ñu bañ a d'accord ak man ci li nga xamante ne moom laay teg comme ay acte bu ne te ñu am droit tamit wax ko que mu nekk opposition que mu nekk samay propre partisan dañu am droit am désaccord ak li nga xamante ne maa koy posé comme acte parce que dañ maa dénk lu ñëpp bokk ñëpp a teg ci seen bët war ko watu am ci seen kàddu en tant que citoyen loolu mooy démocratie ma nangul ko ñëpp nag li ma bëgg a wax rek ci coow li puisque coow am na mooy dafa am fu ñu jëlee Sénégal wax naa ko sànq ci message bi ma doon def te lu ko waral mooy wooteeg jàmm dafa am fa ñu jóge am ay féewaloo avant élection njaboot gi sax biir famille ñu ne am na ñoo xamante ne ay frère ak i sœur ay waajur ak i doom waxatuñ ndax politique yàlla dogal changement régime am ñun ñu doon ñu doon buntu xatal di ñu teg lu ne te mu tegul lu dul ne bëgg téye sa nguur ñu am matug am esprit de dépassement ki nga xamante ne bokk na ci ñi gën a sonn muy président Pastef premier ministre actuellement Ousmane Sonko taxaw Grand Théâtre ne lépp loo xamante ne def nañ ko moom ci boppam baale na ko muy jëfu jullit ndax ku ko xam-xam ne bëri na lu muy wax ne royukaayam ci wàllu politique yonant bi la sallallahu alayhi wa te lu ne teg nañ ko ko mu am doole feyu baale waaye foofu sax sori na Afrique du Sud gii bi apartheid amee ñu def seen commission vérité réconciliation esprit de dépassement la bañ a fayantu